léegi nag <laughs> Gambia people people sa Gambia da dañuy seeti ki nga xam ne mooy am Sow saw xaaral ma sumi nank Yaya Jammeh ci wet gi xarit la Yaya am Amsatou Sow Sidibé mais yaa ngi nii mais Amsatou mais Amsatou mais Amsatou mais Amsatou toj noo Kaolack la nga wax Kaolack toj nga fa loolu ñu bëgg nag nga ñëw waxal ñu ko ndax ne ba ngay ñaxtu ba lépp am yaa ngi réew maa ngi salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp man Amsatou Sow Sidibé nit nag di joxe bopp yotti làmmiñ Macky Sall dañ bëgg ngeen jàppale ko ndax bu fekkee ne jàppale ngeen ko ba mu doon président te jàpp leen ko ba assemblée mu bëri fa ay député ah day mel na laax bu amul suukay waaye laax bu amul soow lakk yi Macky nag jox ngeen ko laax suukar ko ba mu saf sàpp def ci fleur d'orange ba mu neex léegi li des nag mooy yéenay soow mi ñu mun koo mën a lekk nag ndax kat yéen a ngi caaxaanee lenn bu leen sax xalaat war a jéem a xeex loolu ndax boo leen ko defee du ñu mun a dawal dawal gouvernement bi niñ ko bëgg a dawalee man mii di wax ak yéen gis ngeen ma loo muuñ rek di nga mos a muuñ <laughs> yàkkamti baaxul dama ànd ak dal moo taxit ma topp ci mbedd yi ak tëli yi yi pour xamal leen ne yéen marchand yi nga xam ne yéen a nekk fii ci kaw ya bu soobee yàlla sama bakkan bii laa ciy teg Macky sàll duma ko bàyyi benn yoon mu wax loo xam ne dafa ko waroon def ak yéen te sàmm ko gis nga marché sax léegi boo xoolee boo demee ci ay Europe dem ay Dubaay dem ci yeneen dëkk ay Qatar dëkk naa yi yu mag yi dëkk yooyu dañuy defar ay marché yoo xam ne boo bëggee géej gi géej gi rek boo bëggee tomate tomate rek boo bëggee carotte carotte rek <laughs> boo bëggee nag tiisi tiisi rek waaye marché boo xam ne day am daqaar ñu fay jaay tiisi di fa jaay géej gi di fa jaay keew di fa defar ay oto mécanicien yeeg menuisier yi jinax yeeg kaña yëpp jaxasoo bu tàkkee réew ma tas moo tax vraiment may ñaan yaaya ngeen fexe ba jàppale Macky Sall mii ndax kii boo leen ko jàppalee kat li ngeen bëgg di ngeen ko am te ñun tamit li ñu bëgg dinañ ko am bu soobee yàlla Macky nekk na koo xam ne daal di ko man si boppam def maa doy yàlla ko yàcce ku baax <laughs> xam ci dara tax ma wax ko joxe bopp la pour rocc nag moo jarul waaye ñun bu soobee yàlla jigéen li ngeen ma ñax ci yëpp dégg naa ko wax dëgg yàlla Macky sàll nag moo waxoon ca wakaam na ana jigéen wakaam na ñu ne ko nii mu ne loo leen bëgg yaakaar na GIE ñu wax leen GIE ñu ne déedéet Macky ne leen financement pour seen projet bopp ñu ne déedéet Macky ne leen loo leen bëgg ñu ne ñun daal jooytu xanaa jëkkër <laughs> sellaaw sellaaw bi Macky ñëwaatee ba falu ñu waat leen ñoom ñu téye fi ñu téye laa ne ah kon ñii caaxaanu ñii kat jëkkër nañu bëgg incha allah rabbi bu soobee yàlla yàlla mooy takk sëy yi ca aras waaye ñun tamit dinañu fexe jéem a xooy man moom sama parti moom xale yu góor yi ci nekk njagamaar moom bëri na <laughs> su ko defee man yàlla may ne ma ma nekk ci Macky la may jomp sama salaire jéem cee ut ñeent war a juróom ñoo xam ne dinañ leen mën a defal salaire yu baax ñu takk ci gunóor yi Wakaam yi ndax wax dëgg yàlla nag ñoom dañoo am fulla am fayda ndax dañ leen laajee loo leen bëgg dañ na jëkkër rek <laughs> eh, salaam boo ci tollee danga koy uti dinañ leen utal société de jëkkëreer yi. société pour la jabarerie dinañ bu yeexee sax ñu ut ay nit yoo xam ne dañ leen di jël rek yar leen dugal leen di leen jàngal ku génn takk ci xale yi <laughs> gis nga sëy sëy yàlla koy bind ci aras waaye bu soobee yàlla yéen xale yi wakaam yi dëkk ci wakaam wate <laughs> di duñ ko yemale wakaam sax ba ca caaroy ba tëngeej ba sigee soor ba Kaolack bu soobee yàlla <laughs> yéen ñëpp di ngeen sëy Macky nag dañ koy ñaanal rek na fexe ba xale yu góoram yi nekk ci parti yi bu ñu amee liggéey jàpp jàpp sax xam nga moom. xale yi léegi moom dañuy sëy rek te xol yàlla tax sëyatuñ sax ndax xaalis ndax wax dëgg yàlla kuy dem ba ne moom jëkkër rek jaral na ko fal ak folli kon nañ leen utal ay jëkkër ngeen fal. tey boo leen falee rek duñu folleeku bu soobee yàlla <laughs> jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf nag kontaan naa <laughs> lay lay la lay yàllay takk